بالبشر والمداد su ko defee ñu ñëw ci laaj yi kon euh, Serigne Mamor kii day laaj bu dee euh, lan mooy àtte jigéen joo xam ne day jëfandikoo ay doom ngir bañ a gis régal bëgg a woor jigéen joo xam ne day jëfandikoo ay doom ngir bañ a gis règle ngir rek bëgg a woor jërëjëf suñu Abdul Xaadir xam naa jigéen gi nga xam ne day jëfandikoo ay doom ngir arrêté deret ji mu war a génne muy reegal ngir bëgg a woor weeru koor gi xam naa li ma si njëkk wax bala maa ñëw si àtt bi mooy li ma si njëkk wax mooy suñ borom subhanahu wa taala moom moo ñu gën a xam suñ bopp te am dafa am loo xam ne li ñuy wooye ar ruxsa si ñu jàng usulul fiq moom la ñuy wooye taxfifan lil ahkam asaraxiya loolu danoo wax ne bu fekkee ne wér-gu-yaramam may na ko ko mooy médecin xool na ko ba ne ko loolu boo ko defee dara du si nekk borom xam-xam yu bari nee na loolu dara nekku si waaye nag dereet bu gën génnut mën naa am lu mu gàllankoor nit ki bu am lu mu ko def kon dal foofu dañu delluwaat si borom xam borom euh, docteur yi su fekkee ne xool nañ ne wér-gu-yaramam may na ko ko du ko wàññi dara su ko defee dara nekku si am na borom xam-xam bu ñuy wax alxasar yi moom ni mu ko ni mu ko leera dafa wax ne su fekkee ne jigéen la joo xam ne dafa jël ay doom wala dara naan ko ngir arité deretam ba weeru koor jàll loolu dañ koo sib su fekkee ne dafa ko def nag ngir bañ a am doom wala ngir arité wala ak doomam wàññeeku su boobaa day aram waaye ala kulli xaal daal li wax ji gën a wér mooy su fekkee ne ak wér-gu-yaramam may na ko ko dara nekku si wallahu taala alam lan mooy différence jàkka ak jumaa jàkka ak jumaa lan mooy seen différence. jàkka ak jumaa arab yi dañuy wax naan li kulli jaami'an masjid wala sa kullu masjidin jaami'a maanaam jumaa joo gis jàkka la waaye jàkka joo gis du jumaa. loolu nag li ñu koy déggee mooy jàkk mooy foo xam ne dañu fay julli julli juróom yi te kenn du fa julli ajjuma jumaa nag mooy foo xam ne dañu fay julli julli juróom yi dafa julli ajjuma wallaahu taala aalam. leer na ko ñuy fàttali rek euh, li ñu waxoon léegi bu bëgg a déglu waxtaan bi min wi incha allah ci rajo bi tudd i rajo 100.6 incha allah. ma nga ko déglu foofu ki day koo xam ne diggante bi ñu gisee régal ak diggante bi noddee timis soriwut jigéen ñi nga xam ne maanaam gis na régal ñu ngi koy gis ak bi ñuy timis daal xam naa juróomi minute lay doon wala ñeenti minute soriwut kooku lan mooy àtte waaw si Abdou Khadir maanaam heure soo xamante ne gis na ko rek moom te dog jotagul moom kooku day fay heure soo xamante ne gis na ko rek te dog jotagul moom day fay moo xam benn minute la ak la ñetti minute la en tout cas bu dog jotagul rek kooku koor googu moom bis boobu doo ko. Hmm. Euh, ki dafa amee weer koor gi jàll. Hmm. kooku mbokk yi weeru koor dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki bu ko suñu boroom teggalee tamit nga bañ koo def ngir ngànt feebar wala tukki wala dara soo jàllee da nga war a fay ki nga xamante ni nag dafa amee woon kooru daaw maanaam wóoru ba kooru ren gi ñëwaat bor boobu fayu ko léegi ñaari at li nga xool su fekkee ne ñàkk fay gi si coobare boppam la woon maanaam amul lenn lu ko gàllankoor ba weer wi ñëwaat su boobaa islaam danaa ko da ngay wooraat weer wi ba mu jeex nga doog a fay weer wale waaye weer wee bis boo woor boo dogee da ngay génn mudd mudd nag ñu ngi ko xayma si jamono yaakaar naa ay liibar ak ginnaar wala kilo ak liibar su fekkee ne nag su fekkee ne nag tëyu ko woon moom day woor rek waaye du génn mudd wallaahu alam jërëjëf koo xam ne dafa tiim benn tiim dangaa tiim benn tiim ndax mën nga cee julli ay julli maanaam bi ngay julli tisbaar daal dangaa tiim ndax tiim boobu mën nga caa julli takkusaan ak timis ak gee euh, tiim tamit ba tey ñu xam ne day remplacer njàpp su fekkee ne am nga ngànt comme yan waxoon li ñu woowee asbaabu tayammum waaye tiim mënoo see julli ñaari farata maanaam mënoo see julli tusbaar ak takkusaan waaye mënees na si julli nag ñaari naafila la ñaari naafila mënees na si julli tamit nag farata ak naafila waaye su boobaa farata ja mooy yóbbaale la waaye naafila moom mënut a yóbbaale farata wallaahu taala na ki lay laaj koo xam ne du jàng alquran du jàng alquran. du du du woor äh, fonk ñi jàng alquran fonk mu faatu ndax kooku mën nañ ko jàngal alquran wala wallahu taala alam ko kenn du ko jàngal alquran sëñ bi maa tam maanaam xam ne du jàng alquran mhm. fonkut jàngal alquran julli la ab jullit la ab jullit la ay alxuraan ay waaye nag alxuraan moom yoonam nekkul mhm. mhm. jàng alxuraan wala xam nga wax naa ko léegi alxuraan ginnaaw nit ki bu nekk ab jullit Sëñ Tuubaa dina ko leeral si tasawur si xar ah, nit ki nga xamante ni du jàng alxuraan du fonkut alxuraan kooku waras na kaa yedd première mooy mu jàng alxuraan bu fonk alxuraan ndax alxuraan wax naa ko léegi téere bi yàlla la boo xam ne daf ko wàcc su ñun jullit ñi ngir ñu si sukkandiku te alxuraan boo ko dul jàng sa julli mënut ta wér ndax ñëpp xam ne ne julli mënut a wér te doo jàng fatiha kooku nag li mu koy njëkk a digal mooy premièrement mooy bu fekkee ne koy def nag bu faatagul kooku na dem jàng alxuraan mooy ne jàng alxuraan bu diggante bi mu koy jàng nag narooy si ñi nga xamante ne ñu ngi ko def waaye kooku nag su faatoo ah li ma si des na ko jàngal alxuraan ndax ab jullit la comme comme jullit wallaahu taala alam ba léegi ñu ngi fàttaliwaat ku a déglu ko déglu ci rajo euh, euh, boobu su ma jugoon mi ngi sootu nuur. foofu suñu borom subhaanahu li ma koy firee rek mooy am na sax ab aaya bu ko jiitu bu nekk si si euh, kanamam fam naan alxabisaat lil xabisiina wa tayibat li tayibaat li ma koy firee si mooy dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd ñaar ñaar ñaar ñett ak ñett suñu borom day day day day xupp njaalookat yi li mu bëgg foofu mooy ki nga xamante ni dafa day day am njaalookat la dem ban xam ko si njaaloo te tuubut mu dëgër bopp lànk lool kooku bu dee jigéen la buy am jëkkër comme moromam lay am moromam boo xam ne kat la bu nangutu tuub bu dëgër bopp bu dee góor la tamit buy am jabar ah jigéen lañ koy wutal koo xam ne am njaalookat la ku nangutu tuub bu dëgër bopp wallahu taala ahlam ah, loolu moom boo boo yëree am na sax fu mu ko doon waxee risaala Euh, euh, alquran kalaamullah wa laysa maxluqan mooy alquran waxi yàlla la waaye nekkul mbindeef wax nañ sax képp ku ko jàpp mbindeef la bàkkaaru nga te te te te te weddi nga wallaahu taala alam. alquran mbindeef laa bu moom. loolu moom euh, Ahmad ibn Hanbal am na lu ci daj waaw donc jàng histoire. dëgg la ci xam dara. ci leen laaj ku doon julli fàtte fàtte sujjóot xabla salaam. xabla salaam waaw. dafa am luy xab la salaam ak baxda salaam la salaam mooy loo xam ne ñaari sujjóot yi ngay def bala ngaa sëlmal soo defee lu ko waral baxda salaam mooy ñaari sujjóot yi ngay def boo boo boo sëlmalee ba pare bu deen bu doon baxda salaam moom du am problème ndax foo ko fàttali ko rek mën nga def waaye bu dee euh, bu dee bu dee baax dafa fan bu dee xam la salaam foofu dañuy wax ne bu fekkee ne si jotaay bi nga ko fàttaliku bala ngaa génn jàkk ji wala ñu maañ foofu da koy def mu baasarta mooy da nga koy def comme ni ko suñu tubaab nettalee si jawharu nafis waaye nag bu fekkee ne da génn dem ba ab diir nga doog koo fàttaliku dañuy xool foofu su fekkoon ne la nga bàyyi woon mutul ñetti sunna mooy su fekkee ne da bàyyi woon ñetti na moo moo moo waraloon nga def xabla salaam su boobaa julli ga du waaye fekkee ne nag la nga bàyyi woon ñaari sunna la wala benn sunna julli ga daal di wér wasalaam wallaahu axam leen laaj bu ñëw fekk imaam ci biir julli imaam kàbbar na da dugg ci biir jumaa ji fekk imaam di julli bi mhm. euh, xam naa sant sekk moo ko laaj ku fekk imaam muy julli nooy def euh, moom moom itam Sëñ Tuubaa leeral na ko tasul si xaar bu bu yëretu sax na ko fekk mooy da ngay ñëw kàbbar ànd ak imaam fam fam ko fekk fam ko fekk rek fam ngay kii kàbbar boo ko fekkee mooy rukkoo nga ñëw rukkoo soo ko fekkee mu sujjóot nga ñëw sujjóot boo fekkee mu taxaw nga ñëw taxaw wallaahu a'lam ki lay laaj ban saar saar naa lay jàngat wolof yi ñu ngi si jàngoo ki lay ban saar la bind wala wan saar boobu saar wi wan saar moom moo mujjee wàcc ci alquran xam na loolu nag moom ki ko laaj am na ixtilaaf de mooy borom xam-xam dañ see wute de waaye nag ñaari ñaari saar ñoo si gën a siiw mooy isaa jaa nasrullah moom siiw na loolu ñu ne mooy saar yu mujj a wàcc alxuraan am na ñu tamit ñu ne déedéet taw ba mooy baraatun moom mujj a wàcc alxuraan léegi nag wallahu taala alam man mooy ban man la man mooy talaax ba parce que man ki nga xam ne dafa fase soxnaam. yaa ngi yoon ndax dañoo wax ni ku fase soxnaam ñetti yoon te baaw am keneen ku ko jëlaat fase ko mu door diir suwaat ci moom waaw ndax koo xam ne dafa fase soxnaam ñaari yoon bu demaatee feneen sëy ba mu fase ko ndax ñaar fase yi ñu ko jote fase day màbb wala day dañ koy compter wala duñ ko compter. am su ma déggee laaj bi de li nga bëgg laaj mooy Demba mi amoon soxna fase ko ñaata ñaari yoon aywa ñaari yoon la ko fase dem si waat feneen bi mu ñëwee kooku fasewaat ko après kay fasewaat ko dañoo wax ne ku fase soxnaam ñetti yoon day araam ci moom faaw mu dem keneen sëy waat kooku fase ko mu mën a dellusi waat ci borom këram jóg leer na ah, leer waaw ndax koo xam ne dafa fase soxnaam ñaari yoon ñaari yoon la ko fase ah. mu dem sëyiwaat feneen kooku fase ko mm-hmm. ki ko fase woon yoon bu ko fasewaatee da nga koy wax ne am nga ñett fase wala benn wala benn ah d'accord ah, ñaari yoon bàyyi ko mu sëyi feneen kooko waccaat ko yow nga takkaat ko nga fasewaat ko muy ñetti fase su boobaa dañuy wax na ñetti fase nga am mooy dañuy jàpp ñetti fase moom fekk mutul ñett rek duñ ko tamba duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko wàcce waat su fekkoon benn la soo fasewaatee ñaar dañ koy jàpp su fekkee ñaar nga def boobu sax ñett dañ ko jàppe wallahu taala ahlam nga xam maanaam bu dellusiwaatee ci ki ko fasewoo ñetti fase lay doon ñaari fase yi njëkk yi moom wér day compte day compte waaw ah, wallahu ahlam wallahu ahlam kon kon laaj yi waaw jeex na kon sëñ Mamour yal yàlla dooli xam-xam bi waaw bokkaale li ni ko borom xam-xam yi taxarife dane asirku an tajala lillahi niddan mooy nga wutal yàlla dendandoo mooy bokkaale yàlla te yàlla moroom yàlla ak diw waaw yàlla ak diw am na sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko yaatal lool jàppee yàlla am na doom wala yàlla yàlla am yàpp am na yàlla am na baay am na yàlla am na yaay yëpp dañ koy woole dañ koy wooye bokkaale te nag bokkaale dafa nekk bàkkaar bu rëy ndax yàlla wax na si alxuraan ne man yàlla naa jéggale bàkkaar yépp ba mu des ku may bokkaale kon bokkaale baaxul képp koo xam ne yaa ngi koy def jàppal ne yaa ngi weddi nga mooy euh, weddi nga yàlla subhanahu wa taala te bokk suñ tubaab ba muy ba muy lim naan kabairul asila isrina badat aman nuquluhu mu sayxande badat boo ba muy lim ñaar fukk yooyu asirku bi la da nga see boloon kon bàkkaar daal bàkkaar la wax bàkkaar bu rëy la di bokkaale yàlla moom aljana araam na ci yow wa ma'waahu naar fi muy nekkee mooy sawar wa maa lizaalimiina min ansaar kon bokkaale yàlla bi daal lu yàlla bañ la lu yàlla bañ lool sax alquran ba alquran jeex daanaka borom da cee wax lu bare bare bare bare bare واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادته ويكونون عليه ضدا jeexal naa ko ñu ngi fàttali ba léegi ku ko bëgg a déglu rek incha allah min